5 heures 19 maanaam juróomi waxtu ci fajar ba taftalee fukki simili ak juróom-ñeent bu dee waxtu dog yi 19 heures 26 maanaam juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee ñaar fukki simili ak juróom-benn ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila